datub élection bi ni ki le mars bu ñuy dëgmal ndax am na boobu les prérogatives fixé ab datub élection si je Très que si je considère que si parce que euh, bu ñu fàtte ne ay candidats yu ñu validé saisiroon nañu conseil constitutionnel pour carence du chef de l' état carence mooy lan la nga waxoon chef de l' état ba léegi defagu ko et lan la conseil constitutionnel waxoon ne yow président fixel datu élection dans les meilleurs délais dans les meilleurs délais conseil constitutionnel gën na ko leeral démb c'était avant la fin de son mandat le 2 avril. Mm-hmm. donc du moment qu'on que le conseil constitutionnel constate la carence du chef de l'État à ce niveau am na prérogative bu fixer date élection et c'est ce qui s'est passé hier. Mm-hmm. Euh, on parlera de deux dates oui mais boo xoolee peut-être mën na am explication. Mm-hmm. Euh, je considère sama analyse bopp la. que Euh, puisque le chef de l'État avait saisi le conseil constitutionnel ca la mu waxoon ne lu mën a tukkee ci jaloog bi dinaa d'abord laaj conseil constitutionnel xalaatam mhm. ba ko conseil constitutionnel tontoo bi mu jotee réponse bi parce que lundi après-midi je pense la ko la ko saisir ou bien immédiatement bi mu jotee rapport au dialogue de Diamniadio le saisir conseil constitutionnel conseil constitutionnel kon démb la ko tontu amoon na peut-être journée talaata bi yëpp pour réfléchir. Mm. Euh, teg article yeeg xool constitution beeg yooyu ba démb la yónnee réponse bi Macky Sall. Mm-hmm. et je crois que dans l'immédiat ci la Macky Sall jàppee datu 24. le conseil boo fekk mi ngi examiner waat beneen affaire mooy recours yi ma lay wax nii ne candidat yi moom la ñu introduire woon ne président la nga ko waxoon defu ko kon yow conseil constitutionnel jàppal ñu dat Mm-hmm. conseil constitutionnel ci la doog jàpp datu 31. et donc boo xoolee ñaari dates yi jii boo jëlee datu Macky Sall vingt 24 le 24 mars bi ñu nekk tu auras juste euh, disons deux semaines de campagne électorale. ça ne respecte pas les délais ça ne respecte pas les yi nga xam ne moom la code électoral bi wax. boo jëlee datu 31 mars bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel wax donte ñu ngi koy ŋaññ parce que dafay tomb jour pile avec la fait de Pâques de la communauté chrétienne boo jëlee le principe que campagne bi mën na démarrer lundi prochain 11 tu auras trois les trois semaines légales yi nga xam ne moom la euh, euh, euh, code électoral bi wax dans ce cas précis ban date la ñu war a mën a jël mhm. pour man c'est ça le débat aujourd'hui est-ce que datu Macky mooy valable est-ce que datu conseil constitutionnel mooy valable on aurait dit que parce que wóoraguma j'ai pas encore la la preuve que le conseil constitutionnel a pris acte de la date retenue par Macky Sall du 24 Très Donc si c'est comme ça, ce sera la date euh, euh, euh, de, de, de Macky Sall qui sera valide. Pour le, le 31, je considérais que puisque nee nañu les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours est-ce que loolu tamit du indiwaat coow mais du moment que conseil constitutionnel jël na acte de la date de Macky Sall kon je considère que ce débat à ce niveau doit être clos alors Mamadou Fofana entre le conseil constitutionnel et monsieur Macky le président Euh, gis nañ ne neexatu neexoo ñu trop noonu ndax bu ñu fekkee ni ñoom dañ def aw date ne euh, président Macky Sall ñoo jàpp beneen ba ca des est-ce que loolu du wundu ne euh, li ñuy wax ci cour constitutionnelle bi nga xamante ni moom la waa PDS bëggoon mu am est-ce que du ñu jëm ca foofu of nag gis nañu de récemment nga annoncé woon ko ta plein pouvoir yi ñu leen jox est-ce que ñoom duñu entrer en jeu ginnaaw bi Macky Sall yeewee Amadou Ba waaw ay perspective la mhm. et man mbirum le 24 bi sax dañuy dem élection man tànk jàpp demuñu ba jour bi ci urni yi lañuy dugg man gëm naa ne Sénégal demaguñu élection. et la preuve yaa ngi koy wax. conseil constitutionnel def na loo xamante ne nii ci boppam sax après dafa rectifié wu. parce que moom xam na ne amul prérogati prérogative jàpp date. moo tax ba Macky jàppee vingt 24. mu aligné wu ci la 24 parce que c' est le président de la république moom mooy organiser élection yi moom mooy convoquer le collège électoral pour justement ou si vous vule le corps électoral pour ñu mën a organiser li nga xam ne moom mooy élection mhm. mais dama ne dafa am loo xam ne daf fi xew et boobu ba léegi mbir yi mi ngi dem di avancer te fu ñu jëm man jàpp naa ne ba léegi nii guddi gu bët setagul la Sénégal nekk benn moom mooy man am naa ci ay njàqare ci nan nga mën a libérer le premier ministre à dix-sept jours ou dix-huit jour boo xam te ne nii mais yaa ngi ci scrutin bi mhm. loolu benn la deuxièmement ki nga xam ne moom lañ fal tey premier ministre mooy Sidiki Kaba mhm. mais il faut revenir un peu nga xool le profil de l'homme mhm. lan mooy lan lañu am comme perspective ci kanam à côté il y a l'OFNAC bi nga xam te nii presque existé wul woon lu dul dañ koy dégg woy am na ay dossier nit dem na fa ñu jekk-jekk en mode fast track ñu ne of nag léegi am na prérogative boo xam te ne nii mun na la yow ñëw déglu mm-hmm. téye bu ko neexee mu mu mu placer la su mandat de dépôt donc cela veut dire quoi est-ce que nekkul mbirum corruption bañ doon wax ci diggante li nga xam te ne ni moom la parti démocratique sénégalais wax booba léegi ñu nekk ci est-ce que newul ne prérogative yooyu nañuy jël nag pour mu mën a tirer cette histoire au clair est-ce que également kii nga xam te ne kii moom mooy Amadou Ba dina continuer di nekk ji ki nga xam ne moom mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar loolu yëpp les jours à venir dinañu édifier mais lu wër te leer moo di man la ma jàpp te jàpp ko moo dina lu jëm ci mbirum élection moom jamono ji Sénégal. Hmm. jàpp ma ne le 24 bii nii dinañ dem élection. tant que le 24 demuñu ba ne ñu ngi dugal xob yi ci urne yi. Hmm. baax na la ci kanam raw li gët aywa mi ngi noonu jërëjëf ci commentaire yi xam naa dina gën a yaatu nag ci biir journal bi Mame Mbaye jël naa sa ñeent simili ñett. actualité beek laaj. parce que foofu la réew mi toll. merci laaj. nga jël ay simili te yow loo def baax na. loo def a gën loo def loo. loo bëgg def sax moo gën. merci mon Alaaji As. très bien. si mu alaaji as loo bëgg def gën loo xalaat gën maa la ko sargale ci weeru mars bii ñu ne. te muy dëgg. muy weeru jigéen ñi. waaw waaw. te weeru mars bi. waaw waaw suñu weer la. weeru mars bi laa juddu. wa ah oui ah. nuyul ma Adama Mbeng nuyul ma Adama Mbeng bu euh, action pour les droits humains et l'amitié. nuyu nañu la bu baax Adama Mbeng moom chaque matin wax dëgg yàlla def ñuy suivre et mm-hmm. sur ces genres ñuy traité. il est dans la société civile. Mm-hmm. ñoom dañuy jël position. depuis ce coow présidentiel bi ñoom chaque fois dañuy génne seen communiqué voilà ñoom également di di jël position. man personnellement maa koy nuyu di ko wax ne bëgg bëgg naa ko invité des droits humains et. mu ah, de droits humains et de l'amitié. Ah, c'est une belle cause non. waaw hmm. ah, waaw waaw xam nga lu ma wax sama jëkkër da koy valider ba pare. valide waaw kay valider nga invitation bi. valide naa fi bugaat fooru fi de yaa fi foor. nee naa la bu bu loo bëgg def sax defal. jeex te xam ne dama koy dama koy nangu. wax nga dëgg ak euh, maritam xam nga sama man man mars dafa saf. man mars sama ñaari doom yi mars. ah oui kenn ki daal moo ci rax ak seen yaay ñoom ñoo rax si si si sunu mars. ah dëgg la kay yàlla baax na. <laughs> tribune yéen kay. tey nag sénégalais yi ñoo yëg ci kaw tribune bi ndax projet de loi bi nga xam ne jot na jàll. ca pencum ndawi réew ma démb. mu di am on considère ça comme humiliant. ah c'est humiliant pour moi. tribune kon yéen bokk xalaat. 86 mhm. morts yu nga xam ne diggante 2021 2022 nee na président Macky Sall fu mu nekk ni am na si bi yëfam la li mu bëggoon am na du samay kàddu tribune yéen moo ko wax une loi pour protéger ses proches ndax nag. diggante deux mille vingt et un bi deux mille vingt quatre dund nañ dégg nañu fi lu ne. et Fox Occulto makan mu nuyu kan. Pouy Pouy grande gueule. mi ngi Ibrahima Pouy. ndeysaan ku baax waaye ñu koy nuyu bu baax Ibrahima. a seetaan bu baax a baax xaritu Simon Faye. a Sénégal non mais <laughs> Sénégal lii mooy Sénégal quoi. lan ah, ah mais ah, Cheikh Omar nii ñu taxaw ne nañu voté loi nit ñi ah, jàll na malheureusement. quatorzième législature bi kay. Hmm. jàllale nañ ko donte am ñu ne déet am ñu maanu mais jàll na. ok donc jàll na. lan la ñu war a def jàll na di. waaw ok ah mënatoo ci dara di ñun ñoo tànn ay député ñu ne leen yéen ñuy représenté seen kàddu doy nañu le représentants du peuple. mais teguwul fenn. waaw a tànn député yi. waaw waaw bëggoon fi changement. képp naan du son naam dama ne. c' vrai man si laa bokk man man voté naa mais ñun ñoo tànn député yi. waaw ok nañ tànn ku ne. waaw d' accord koo voté duma ko wax. <laughs> nga réew mi dañ ciy def dañuy ñu ngi posé ay actes yoo xam ne tôt ou tard daf ñuy dab. te li nga wax dëgg la. non dama la xoolal 94 voix contre 48. ñii abstenir lu tax daanaka double bi la. ñii abstenir lu tax ñuy abstenir dañoo maanu. mais loolu moo amul. ki ne di moo kay. consent. ma bay daal. man nga ne man man kii na déet sax moo ma gënal kii kii maa sama mboq bu ma déggalee. benn politicien du ma woo manifestation ma lay. génneel ci mbedd moom laa leen wax de. kuñ ci rey ni dafay firnde na ko. mais non lecture bi du loolu de. Mhm. et la justice dans tout ça. ah waaw mais Sénégal lañu. c'est pour ça que je dis que c'est humiliant nee justice war a. kon kon kon magistrat yi lañ nekkoon di sonn nag di jël xale yi di placer sous mandat de dépôt. lépp la quoi loolu xamoon nga loolu lu muy tekk mooy lan Mambé. ah. waaw. lii nii lu muy tekk xam nga mooy lan. lu une république à terre. jërëjëf. le projet de loi adopté à 94 voix contre 48 ak deux yu nga xam ne dañoo maanu ci projet de loi bi jamono joojee nag beneen actualité daal di rot. mos naa gis lii. e arrondissement nee na yi dañoo may conseil constitutionnel xel may ko may ko ba mu wóor ne nanguwul ñu doog a mën a voté contre ci <laughs> ci amnistie bi yàlla baax na Sénégal moo bëree expert. tribune yéen a kaay nee jamono ju ñuy ngawti ngawti amnistie bi. conseil constitutionnel moom it waaf sa géew ba. Sénégal Sénégal. la ñu tënk yëpp ci dialogue ba. proposé woon leen ko nee nañu bëgguñu jëluñu foo leen xam jëm leen ak seen i proposition léegi waaw léegi ñoom ñoo nar a organiser élection waaw ñoom ñoo nar a <laughs> léegi man kay laaj may laaj moo di <laughs> man xam naa ne moom président bi ñuy fal nii palin gu palin gu ni ñaawee palin gu ni saltee palin gu ni xele xelee ni teey bu masta am dañ koy fale. yoon wee bëri xaaxam. non moom moom xaw ma xuus jàll xaw ma bëri lu jàll. yoonu problème kese mais président boo xam ne crédibilité moom dañu koy xoolaat. ndax yow ñi ñi war a arbitrer am na tuuma yi ñu teg seen doon da xamaguñ gis nga ñiy faatu nii niñ jëlee lépp fës ne gas suul tuuma yi ñu def nii yëpp noonu lañ ko fës ne gas suul boo fi xefee di ngeen fi fal président boo xam ne waxuma laa double nationalité waaye triple nationalité mën na ko am fi fal président boo xam ne boo xefee bori neen lay def parce que fisc bi Malick Gakou nee na saal bi weex quoi yëkkati leen kii bi nu mu tudd kitis bi mais justement euh, face aux failles du ah! Conseil constitutionnel noonu la ñuy demee la mésentente <laughs> entre Macky et son et ses sept sages est-ce qu'on ne va pas vers une cour constitutionnelle loolu mooy am ah mais de toute façon ba fi ñu toll nii damay jàpp ne man nii lañ fas yéenee demee élection ci tuuma yi nga xam ne teg nañu ko euh, ci xel mu teey mi nga xam ne teg nañu ko ay candidat ñu ne waxuma kenn tuumalu ma kenn am nañu double nationalité jàll nañu ñoo ñu ne conseil constitutionnel am na si ñaar ñu nga xam ne dañu leen guerre ba tey dara leeragul xamuñu spoliés yi ak la ñu doon jàmbat neuf cent mille électeurs la ñu wax yu waroon mën a voté te du ñu voté ce qui veut dire que kon bu élection yi demee nii bu ñu ko tëggee di ay sénégalais am droit voté. aywa ku ci mel ni professeur Mary Teuw hmm. daan voté nga ñëw ñu ne la sa tour nekk kon moom du voté. yow 24 bii ñu jàpp yow sa yow bokkoo. Hmm? am nga lan Mamadou temps moom li ngay wax moom. man de yaay moom nee naa ko nee naa source mi ngi fa table ba. ah sa source bi moom da ko war a bokk ak Macky Sall mi dool na coow. non mais li gën xamul lan la li ko fi dese weer soxlaatul beneen coow. est-ce que sax doyal na. man Macky daal ku doyal daal da dem ku doyal da dem wax dëgg yàlla. bi mu nekk nii conseil constitutionnel bi la fi bàyyi mu valider le prochain président moom boo fekk dem na. parce que élection yi bu nekkee le le le 24. peut-être le 31 wala lundi ba ca topp. on aura on aura au moins les résultats du premier tour. <laughs> waaw Amadou Mame après euh, après bu deuxième tour amee deuxième tour ko gëm nga ne gëm ni day am. ah man de man man de wax dëgg neex yàlla gëm naa ko léegi. baax na ba ci kanam. ma <laughs> Macky Sall pourquoi alors autant de pouvoir Macky soxlawul beneen beneen coow. pourquoi mais ñun sénégalais ñoo doyal sëkk sëkk sëkk ci